أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم أيها المستمعون الأوفياء أيها الأحبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنتي الله كل شيء ننتمي bi di nuyu soppe yi am di nuyu di xañaanal fadilatu cheikh Thierno Hamidou di ko jox nuyoo ziyaar mu dem ci kilifa yi Thierno Bachir Taal ayyadahullah wa nasara kilifa diine yëpp ñu leen di ñaanal yàlla di ñaanal ñu ci kër gi soxna ñu ma ak bi ñoom ñëpp ذكورا واناثا غور اخ جيجين ماغا داو نون تاميت لا ني نيو اخ نيانال ني في ديف وقتان نيوم نيبيت ني دوغالي تي بير دي نوي سونو واي جور الحاج كوم داني سار ديكو نيانال يالا توفيق يالا دولي كو سترا ياغال كو تي كانوم جابور دي نوي فامي بي ييب بايو ني كان دي نوي سيني باب الحاج عبد الله جوب باجي ندايماتي الحاج منصور نيا كوماندان نكاي نوي بو باخا باخ di nuyu soppe yi ci mel ni maman Sahaba suñuy yaay yi fi ne mun a Diouf moom it mu ngi nuyu njaboot gi yëpp mu ngi yëg seen ñaan ak seen ziyaar yal na yàlla di ko sutura bu baax a baax ah ñamu ko seexal ñoom ñëpp ñoom ñëpp Babacar a ngi leen di ziyaar soppe yi ndongo liggéey El Hadj Malick Malick ñu jël nuyoo jox leen ngeen joxal ñu soppe yi ñoom ñëpp fu ñu mën a nekk. Dekendoi yi soxna Raki Daaf allah soxna Mari Diallo Adja Fat Badji ngeen jottal ñu nuyo dëkkandoo yi skat irbam lu ko wër na wa amo ñu leen di nuyu bu baax eh, wa skat irbam elhaji Yoro Ndiaye ñu nuyul ñu njaboot gi ñom ñebit ziaral ñu nyom yi am bi jammay ñom ko leex ñom ñëpp rek soppane ñom Idrissa allah fi ci skat irbam momit diko di ñaanal yalla tawfiq sutura ci ñaan yeex ci encouragement bi ñoom ñëpp waa Safina Saadaati ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu waa Cité faja ñoom Ramatulaay Aan waa Point E Ngone Ngom waa Khady Thiaw waa Castor Khady Thiaw ñoom ñëpp waa Bambilor Amina Xuma waa Kër Mbay Fall Aminata Ñaa di nuyu waa Yëmbal ñu ñu soppee Oustaz Moussa Baldé lañ ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax waa Kër Massar fàttewuñu kenn waa Yoof ñu ngi leen di nuyu bu baax Aji Binta Silla Imam Badou Samb Imam Ousmane Faye jotoo Pape Mor Faye libaas nga njëtal ñu nuyoo soppe yëpp ba ci Abdoulaye Sarr gintee bi suñu mag Pape Assane Gueye yof na ngaañ soppe yi fu ñu mën nekk foofu rek ñu ngi leen di nuyu di xam ne yéen a ngi bàyyi xel ñu nit ñu ngi leen di ñaanal fu ñu toll naaji bi nga nuyu ñu njaboot bi yëpp yàlla defal la tawféex di nuyu waale waa hôpital Abass ndaw rawatina waa réanimation ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax fépp fu soppe ne rek ñu ngi koy nuyu bu baax a baax yal yàlla defal leen tawféex ñoom ñëpp Euh, di nuyu ñi nga xamante ne ay malaat lañ ne ci hôpitaux yi ak ñi leen di accompagner yëpp malade yi yàlla saafara leen ba ñu delluwaat seen njaboot moo xam ñi ci hôpital mag leen Senghor aussi di nuyu docteur Diop ñoom ñëpp macha allah mbokk yi fay nekk di déglu ñoom ñëpp ñu ngi leen di jaajëfal. Euh, suñu mag ñi nga xamante ne ñu ngi ñuy gunge jamono bu ne ba ka ne ci bopp ba di Pape Amadou Sow rajo yokkute macha allah ñu ngi koy euh, nuyu bu baax Pa Wargo Wan El Hadj Doudou Seck El Hadj Baye ah ñu mel ni ñoom Pape Souleymane Kandji waa wan fii ci Scat Urbam ñoom it ñu ngi ñaan seen kàddu yëpp mooy lii góor gi Amadou Sow wax rek macha allah ne daal bàyyiwul kenn mu ngi nuyu ñëpp ndëkk góor ak jigéen magax ndaw ku si nekk jàppal ne fa mu toog xelam mu ngi ci yow ku si nekk jàppal na it mu ngi lay ñaanal ci lépp looy yëngatu yàlla na ko yàlla barkeel mu ngi ñaanal képp ku si ne wér gu yaram yi nga bëgg ci sa yaram yàlla na la ko yàlla defal defal na tawfiix di ñaanal seen njaboot ñoom ñëpp eh, ñoom mag ñoom it jël seen kàddu duñ ko jooyal ci kàddu El Hadj Amadou Sow am nañu mbégte lool su ngeen leen di bàyyi xel wax dëgg yàlla ñoom ay mag lañ seen wàll wéy na waaye déedéet mag moom eh, dañ koy soxla bu baax kon mag ñooñu yan leen fi yàlla yàggal eh, El Hadj Doudou Seck ñu ñu waa Liberté yooyu yëpp El Hadj Baye Ngalla ja mbokk yi di nuyu waale njabootam ñoom ñëpp jël nuyoo di ko jox kolle macha allah mu gisal ñu ko njaboot gi ñoom ñëpp. Adja Mbagge ñu ngi koy ziar bu baax bàyyi ñu kenn yal na yàlla defal leen tawfiix di nuyu uh, waa Yaraax Kandidou Sow taximaani ñu leen di nuyu Abdou Aziz Fall waa Kambareen eh, ñoom ñëpp maam Mbayam Dieng yaay Aminata maam war a koy nuyu bu baax a baax daayira Huda ñoom Ba ñoom Adja ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu. di nuyu suñu doom bàyyi ngoone ngoom fële ci yoof jël nuyoo ba nag di ko jox ki nga xamante ne mooy mari macha allah. nga nuyul ñu ayta tey moom yow yaay nuyu ayta incha allah mari ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di am mbégte si ñaan yeex ci teewlu bi yal yàlla defal la tawféex nga nuyul ñu dëkkandoo yi foofu yëpp nuyul ñu papa musa aussi ñu ngi koy ziar bu baax a baax a baax yal yàlla defal leen tawféex kon nag mbokk yi déglu Safin FM 98 point 2 euh, ñu ngi ñëw seen émission xam sa diine kii na ci xarala bi mooy seen jigéen soxna Roxaya macha allah yal yàlla defal ko tawféex. ci weer wi ñu nekk di weer wu barkeel yonent bi doon wax ne weer wi weeram la moom sallallahu alayhi wa sallam weer wi ñu génn mooy weeru suñu boroom weer wi ñu dëkkmal di weeru jullit yëpp muy weeru koor kon mbokk yi déglu Safina FM 98 point ba tey seen émission xam sa diine mu ngi ñëwaat ci wax importance julli ginaaw bi ko ay mbokk soxla sàkk ko ñu gën leen ci ñaax gën leen ci fàttali bu baax di nuyu Aliou mbay nga ax ña muy toogal ñoom ñëpp soxna leena nga jëtal ñu nuyoo njaboot gi yëpp waa daara ji foofu yëpp ñu ngi leen di nuyu macha allah di leen ñaanal yàlla yàlla defal leen xeewal ci géej gi yàlla barkel liggéey bu baax a baax yàlla musal leen sàmm leen aar leen kon nag mbokk yi buñu waxé julli gi ndon waxtani amna ay laaj yu fi rot comme jamono bu ne len ci andi xajna luñ ci man indi rek na ngeen xamne julli dafa am ay waxtu ndax li gëna reuy doom aadama diko def digënté ak boroomam li tax ñu ne bu amul diine l'islam du am li nga xamantene ne ëllëg moom la ñuy njëkk laaj yowmal qiyaam li nga xamante ne su baaxee lépp baax li nga xamante ne mooy dox suñu diggante ak ñu nekkul ay jullit importance bi mu am loolu moo tax suñu borom oowoon yonente bi riñaane ko jox ko julli loolu moo tax mu utal ko waxtu du ne da tëdd ba mu neex la rek nga jóg ne naa julli ndax suñu borom bëgg na ngay diisoo ak moom di deeyoo ak moom ci anam yëpp di def zikrullah méditation yeneen ak yeneen yëpp ci biir zikrullah kon rendez-vous bu mag boobu nga faskee ne am sa boroom moo tax mu ne la inna salaata kaanat ala almuminina kitaaban mawquuta sadaqa allahu azim mbokk yi julli dafa am waxtu wu ñu ko war a defee gis nga yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu demee riñaan yàlla jox ko fa julli axla sa xew yépp mel ni bu ma la doon jox misaal démb la demoon riñaan tey si fajar mu ñëw bi mu ñëwee bi tisbaar di jot rek jibril dafa ñëw ne ko yaa muhammad xum fa salli اي يا سيدنا محمد سني بروم نينغا جوج جولي وقت جاتنا كون دوك فوفو لا تامبالي ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا مو جوج جولي تسبار جبريل وان كون ني نكاي ديفي دلو تاكوسان جوت جبريل نيوات نكا يا محمد قم فصلي تيمس نونو جيوي نونو سوبا نونو julli juróom yi mat bu see wan na ko njalbeenu waxtu wa sa ëllëg sa jibril alayhi salaatu wassalaam ñëwaat waaye bés bi jëkk bi bu ma la joxee misaal ma ne la tey comme masalan dafa ñëwoon une heure ci bëccëg wan ko tisbaar na ko jot na jógal julli sa ëllëg sa ñëwul bi une heure jotee masalan dafa bàyyi ba trois heures et demi jëm quatre mu ne ko jógal nga julli tàkkusaanit mu yéexe ko geewe it mu yéexe ko suba it mu yéexe ko ba mu des julli timis timis moom sa waxtu wa mu ñëwoon démb rek la ñëwaat loolu moo tax ñëpp dëppoo ne timis moom waxtoom yaatuwul kon jibril alayhi salaatu wassalaam wan na yonente bi wan nañu ne julli dafa am waxtu wu ñu ko war a defe ci xadis boobu muy xadisu imaamatu jibril alayhi salaatu wassalaam xadis bi nga xamante ne moom lañuy ñuy tudde ne jibril moo doon wan yonente bi nan lañuy ñuy jullee wala boog moo doon julli yonente bi topp ci moom ala kulli xaalin jàngal na ko ndigal lu jóge ci boroomam wan ko nan la ñuy jullee ci njalbeenu waxtu ak ci njeexintalu waxtu comme mbokk yi déglu Safina FM 98 point 2 jullee ngi noonu waxtoom waxtu woowu nag mu am lu mu laaj lu bëree bëri mu xeloon ni tey rek nga am gan goo war a teeru wala kilifa gu lay teeru na ngay waajale sa bopp nanga koy waajale bëgg it mu am mbégte ci istiqbaal bi ci accueil bi bëgg seen waxtaan mën a neex mu bàyyi la xel nga bàyyi ko xel suñu boroom ne xuzu zinatakum inda kulli masjidin bu waxtu jotee na ngeen sol seen taarluwaay na ngeen sol yu yiw na ngeen sol yu sel na ngeen sol yu laab na ngeen sol yoo xamante ne seen awra du feeñ na ngeen sol yoo xam ne sibuñu ko ci julli xuzu zinatakum inda kulli masjidin kon da nga wara solo bu baax nit ki ngay deme ci rendez-vous adina daje fax nit la nang koy bayé xel suñu borom nonu la bëgg nga bàyyi xel rendez-vous bu am solo bobu le ci walu laab ci walu toroxlu waye timit ci fonk waxtu inna salaata kaanat alal muminina kitaban mawquta moo tax suñu borom bi subhaanahu wa taala di la wan importance julli di wax جارلكو تي يننتبي صلى الله عليه وسلم نكو قل لعبادي الذين امنوا يقيموا الصلاه فنين مكاي وحات ينن يننتي دلين وحني وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها اسنا يو ييب دالاي وان امبورطانس جولي دو يم تي يو واي سن جابوت نيغا جابوتي الجمعه بي باسي وحنا لنا لا يننتي صلى الله عليه وسلم bokkoon na ci kàddoom yi mu doon mujjee wax ci dunduk àddinaam bi mu tolloo ci sukuraat mu nga wax naan assole assole assole wa ma malakat aymaanukum dénk naa leen julli sax leen ci julli bàyyi leen xel julli bu leen sàggana julli ak képp ku ngeen jaboote bon wa'mur ahlaka bis salaati wastabir alayha te yooyu it mu am fuñ ko war a defe ñeel góor ñi fi buyutin azina allahu an turfaa wa yuzkara fiha smuhu suba ax ngoon nag yusabbihu lahu fiha bil guduwi wal asal kon julli dafa am suba am ngoon yii dañu jaa dem ci suba gi yii dem ci ngoon gi lu mel ni timis geewe yii nga xam dañu dem ci suba gi julli suba muy bëccëg bi tisbaar ba tàkkusaan kon juróomi julli yi fu si nekk yàlla am na nu mu waxee ne noonu la ñan ñooy julli yow miy déglu Safina am ci nga bokk jullit bi rek bi si am mu ñëpp ci lañ bokk ñooñu ay góor axi jigéen lañ rijalun laa tulhiihum tijaratun wala bayun an zikrillahi wa iqaami salaa ay nitu yàlla moo xam góor la wala jigéen ñoo xamante ne nii day du dem géej moo leen yitteel déedéet du dem marché moo leen yitteel dedet du dem ci hôpitaux yi du dem du dem di dem dedet yëngatu adina la baax waye du lolou moy dox sen digeunte jaamu yàlla la tulhihim tijaratun activité yi du la tere mukk julli wala bayun an allah wa iqamis salat ah fo mana a ci kaw souf ah metti mo man di exercer bu waxtu julli jotee na nga xamantene julli suñu borom bi yow lay waxal boo mënee dem jakk ji ku gor ki nga dem su ngànt amé l'islam nangu na ngant ku jigen ki jàkkaam moy kërëm lek lek nak yonenté bi né bu len téré jigen ñi ñuy dem ci jakk yi waaye nañu mel nañu wara mel ci sàmm bu baax mbokk yi déglu Safin FM 98.2 inna salaata amrun azim wallahi julli lu màgg la lu rëy la suñu borom moom julli ba taxoon mu yéega yenente bi sallallahu alayhi wa jox ko ko mënoon na ko def ni mu def yeneen ponk yi oo jibril yónni ko ci moom waaye def ko oo mu riñaane ko ngir wan ko soloy julli waaye wanaale ko fa it teraanga yi mu jencal woy julli kaj ni wanaale ko fa it sofaan waaye sofaan ya ku julliwul yàlla def la lii yàlla def la lii loolu moom bu ñu sañoon duñ ci ñëw ndax yonent bi moo wax ne bashiru wala tunaffiru bég leel waaye bul xuppe bég leel bul terroriser jaamu yàlla yi ku ñëw rekk nga dagg bopp bi boo julliwul jahannama boo julliwul nangam naam jeexintal mujjantal ga ci la waaye nanga nga xemmam loo nit ki julli wan ko njariñ yi ci yàlla def subhaanahu wa ta'ala na ko wan na ko yërmande yàlla yaatu na te gis nga yàlla saa yoo déggee lu baax saa yoo gisee lu baax occasion la pour nga dellu ci yàlla subhaanahu wa ta'ala xëj na bu la yàlla baaxewul woon jotaay boobale doo ko fekk wax joojale doo ko dégg ba ci mën a gindeeku mën a delluwaat ci sa borom bi subhaanahu wa taala mbokk yi déglu Safina FM julli mooy ponk bi gën a màgg ci ponk lislaam ndax ponk bi lay dugal ci lislaam mooy ash-shahadataani mooy nga attesté seede ne yàlla kenn la yonentaam bi moom moo ko yónni muy Seyduna Muhammad mais seede boobule wax boobule kenn du ko gis ci xol lay ne mais la koy màndargaal la koy jëmmal loola mooy jëf ji ngay def te jëf yooyu julli و جهي زكاة دمك أخيانين تتوو آتي مي چوباري وي واي در گمي چي جولي موي وانني سيدنغن يالا كن تمو يوني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مبقي دقلو سفين اف ام 92.2 جولي موي فونداسيون اسلام سيلا لبروبوز روپوز مون جولي mom julli moy raaya l'islam ndekete yo julli huwa ghizaaun lirruh ruux dund la ndox la loo jël ci walu ndox wala ci walu dund mom julli ghizaaun lirruh ruux ñeel sa ruh ndax ruh likoy dundal moy jaamu yàlla te la ci gëna mag moy julli ndax julli mbokk yi mooy moo lay lëkkaleex sa borom moo lay lëkkaleex sa borom mu ngi mel ni sa portable bi nga yor soo bëggoon oo ku nekk ci beneen diiwaan amuloo réseau doo ko jot suñu borom noonu nga mel ak moom soo connecté wul doo ko mën jot te ni ngay connecté pour jot suñu boroom mooy julli waajtaay ga laab ga sol yére yooyu yëpp mooy jël matuwaay yi bu dee portable nga chargé ko mu baax mu nangam mu nangam mu nàngam yooyu yëpp ba boo ne mu ne la allo muy allahu akbar suñu borom bi ne rek sama jaam bi egg na laajal ma jox la lan nga bëgg mbokk yi julli sakinatul mu'min mooy sa dal sa tranquillité foo fekk kuy julli da koy gis nga yaakaar ne kii jeexalul dara danga koy gis mbiram yéem la lool danga koy gis bu nit ñi di dengi déngi danga koy gis bu nit ñi amee ay njaxare ay souci da koy gis danga koy gis difficulté yi am yëpp yàlla daf koy dimmali dafay am tranquillité ndax suñu borom moo ne allazina amanu وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب كون بوكي دغلو سفينة فم ترانكيليتي مانو نيوكو ام فن فدول تي جولي استرسي بارينا يومو مانا دون رك واي فاتل يوي فوتو غاي ام جاخاري دي خلات سما سيتياسيون يي كاني لاي ديكانتيو سما مبير سما سما سما سما, سما. dellul ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mi yàlla wax ne walakum fi rasulillahi uswatun xasanatu mooy seen modèle moom yonente bi sallallahu alayhi wa dellul ci moom mu jox la médicament lu masaan yitteel jullit yi lan la daan wax yaa bilal arix biha yaa bilal arix naa biha ootal ñu julli coono yi njaxare yi jafe-jafe yi ñu noppaloo ko ci te julli rek moo ko mën a def arihna biha ya bilal sakinatul mumin mbokk yi julli daf lay dimbali nga am tranquillité am équilibre da ngay am confiance ci sa bopp dara du la déranger parce que ni ngay jokkoo sa borom minimum 5 fois par jour waxuma la naafile yi farata yi rek minimum cinq fois par jour mais doo doo doo deñ di connecté yaa sa borom mu lay jox ci anwaar yi ci leer yi ci ay barakaat ay nafaxaat ay xéewal di dotti ci yow sutura di dotti ci yow yërmandeem waaye mbokk yi loolu ku mu nekk ci yow ku mu àndax yow wax dëgg yàlla mbiru àddina du la déranger motaxone yonente bi luma san xew ci mom wala ci julli di rek mune arihna biha ya bilal kon mbok mi déglu Safin FM layta kon ba ci ki di wax ñu xam importance julli mbok yi du azar suñu borom o yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ba ci kaw fu malaaka yi kay jige sa su sax manul egg mu eggale fa yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jox ko julli mbokk yi nañu fonk julli bu baax julli silwatun aw silwatul muhazin trésor la julli magasin la ñel képp koo xamantene rek yaa ngex njaxare yaa ngex ay jëfe jëfe rek del dellu ci julli وقرة عين الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم julli moo feral ndoxu bëtu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dana wax ne daal sama ndoxum bët mi li koy seral loolu ci julli la ne moom la ma yàlla defal minute loolu la ñu yàlla defal moo taxoon mu naan arixna biha ya bilal wa juilat qurratu ayni fi lsolaa mbokk yi déglu Safin FM di nuyu waa Grand Yoff ñoom Marème li ñëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax nuyu Ahmed Ibrahim Géejawaay Muntaga Marème njaay fële ci Thiaroy ñaam Ngom Mariste ñu ngi koy nuyu bu baax Aminata Sow Pikine macha allah di nuyu waa Liberté yëpp Liberté 4 Liberté 5 soxna Binta Mbaye ñu ngi koy nuyu bu baax Mor Touré waa Rufisque Cheikh Ahmed Tidiane Ndoye di nuyu waa Cambérène suñu papa papa Gana Diop macha allah di nuyu mbokk yi fane bayt yëpp di ziar mbokk yi ci xew-xew yi ñu génn yal yàlla defal leen ci tawfiix soxna Fat Cissé fii si Scat Urbam Serigne Diop Ndiaye kooku taalibe daa baax la di nuyu waa caverne Malick si ñu ngi leen di nuyu macha allah di jël nuyoo di ko jox Malick Ban Pape Mamadou Mbaye Kër Massar ñu koy nuyu bu baax a baax. soppe yi nekk yoof yëpp libaas Pape Mor ngeen jotal ñu nuyoo euh, soppe yëpp ñu ngi leen di nuyu fu mu ñu mën nekk yal yàlla sàmmal ñu leen waa unité 10 soxna Ndeye Binta Konte ñu ngi koy nuyu bu baax a baax euh, soxna Adja Kër Massar mère Khoudia ñoom ñëpp ñu leen di nuyu waa HLM jël di ko jox Maimouna Diaw macha allah di nuyu Moulay Abdoul Aziz baa ngi yoof daagu daan maa ne di nuyu Abdou Sarr Guy Diis ak muy toogal ñoom ñëpp ñu ngi leen di macha allah. Babacar soppe la ñu ngi koy nuyu bu baax a baax a baax Ousmane Diaw Tailleur fii ci Grand Yoff ñu ngi koy nuyu yal na yàlla sàmmal ñu leen ñoom ñëpp incha allahu rabbi kon mbokk yi déglu Safin FM yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na lu bëree bëri ci ngëneelu julli dafa doon wax ne alsalawatu alxams waljumuatu ila aljumua kafaratun lima baynahunna ma lam tuxsha alkabair dafa daan wax ni diggante julli juróom yu ne tisbaar ba tisbaar takkusaan ba takkusaan ba noonu wala tisbaar takkusaan takkusaan timis noo ko jëlee mu ne aljuma ba aljuma diggante boobu yëpp lépp lu fi nekk ci ay bàkkaar yàlla dana la ko faral xoolal mbokk yi julli ni mu amee solo ndekete julli daf lay raxas si ay bàkkaar motax mom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam moy waxaat ne ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا, كا إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة وذلك الدهر كله xoolal mbokk yi loolu yonent bi ne amul benn jaam góor wala jigéen julli farata teew nga jàpp njàpp mu lëw ni ñu koy waxee jàpp mu sell mu mat ci toroxlu gu mat rukon yi mat sujjóot ya mat moo loolu lu dul ne boo yàlla dana la ci faral mboolem bàkkaar su fekkee lu nga ci moytandiku bàkkaar yu mag yi rek yàlla yëpp dana la ko jéggal mu ne loolu nag du benn fan de déedéet du ci weer rek de déedéet mu ne wa zalika dahru kullu loolu at mi yëpp la mi yëpp la trois cent soixante cinq jours yi vingt quatre sur vingt quatre julli goo julli rek mu ne yàlla mu ngi lay effacer yëpp comme niñ la ko waxee émission bële passé ne so sëggee so siggee yi ngay def yëpp sa bakari mu ngi rotat waaye yàlla mo bari yërmande mbokk yi أيها الأحباب بكاري برينا لول بكاري برينا لول جونتي برينا لول رتشي رتشي برينا لول sàggante jëm ci suñu boroom bari na lool ndax faw àddina yi léeg-léeg nga waroon am foo xamante da nga waroon toog di méditer ci sa boroom moo xam zikr la julli la loo man def waaye xëj na yaa ngi ci benn mbiru àddina rawatina xëj na jamono bii nga xamante ne nii seytaane dafay profiter ci occasion yi boo xoolee ci portable yi léegi internet bi nga xam ne siw na lool fa nga waroon toog جلس كروس دي سبحان الله ولا لا إله إلا الله ولا دف صلاة على النبي ولا دف استغفار يعني صرف يعني في فيسبوك بي آه لا لا لا عيدة دي وحرك من نعم، يعني تي واتساب بي يعني واتساب رك واو واو كون ديك يوي مجل اللتان اي اير اي مينيت نغا نتي رك كومانتي بي داو واي مبوكني سغانتي يوي سونو yooyu yëpp dajaloo ci ñun amoon ay waajibaat ay wareef yu tegu suñu kaw ñu waroon ko taxawee waaye ñu ngi ko bàyyi ndax yàlla indiw ñu fi ngir ñu fo information doy na ci lépp boo xëyee boo amee internet ubbi ko wala rajo la wala télévision la nga déglu information xam lu xew ci àddina bi xam lu xew sa gox man nga ko def saa su ne diira bëccëg bi mais bu mu jël sa bëccëg bi yëpp nga yendu ci bëgg ci finaan nga yendu ci bëgg ci finaan mbokk yi mais foo toll war nga man xam information lu xew ci dëkk bi lu xew ci àddina bi waaye nag am na yoo xam ne mën na ñàkk nag am na yoo xam ne mën na ñàkk suñ demee ba mu jël sa bëccëg bi yëpp te dara nekku ci lu dul li yàlla xam doy na لول موتاخ وخد جعل الله سبحانه وتعالى في الصلاة ما يكفر ذلك يالا دفل نيشي جولي لو خامنتنا دانا نيو فرال نجوم تيويو فت فت يويو لي تيف يويو لي سنو بروم بدانا نيو كو جيجل چي جولي مي جان دي فر لب لو خامنتنا وانيف لا لب لو خامنتنا تيف لا لومو مانا دون جولي بو نيو يرك دانا رامبلاسي لولو لب جلنين سيننت بي صلى الله عليه وسلم موي ولنا امبورتانس جل بقي ان لله ملكا ينادي عند كل صلاه يا بني ادم قوموا الى نيرانكم التي اوقدتموها فاطفئوها الله اكبر ينتبهني inna lillahi malika yàlla am na ay malaayika yoo xamante ni dinañ woote ci waxtu julli bu jot nan yaa bani aadam ee doom aadama yi ee yéen mbindeefu yàlla yi quumu ila niiraanikum allati musiba yi taal mooy mooy yàlla gi mooy yu mu doon nga xamante yéen ko taal mu ne jóg leen ngeen fay ko ci julli motax bo boo hayya ala salah hayya ala al falah bul ko xara ci ken yow lay waxal ta jàppal ne malaaka mi moy wax ak yow ya bani adam qumu ila niiraanikum التي أوقدتموها حي على الصلاة حي على الفلاح jógal nga waajal sa bopp mbokk yi jamono bii mooy yàlla bari na lool te yombanu jamono bu ne rek ñu ngi ci noor guddi bu jëkk waa mbokk yi ci xool loo warul xool ci déglu loo warul woon a déglu ci gis loo warul woon a gis ci lekk loo warul woon lekk naan loo warul naan sol loo warul sol yooyu yëpp bëccëg bu ne ñu ngi ci mu am ku ñëw ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam fa akhbarahu annahu asaba min imraatin qubula waji dafa ñëw ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi pour walna importance julli ni muy faré lépp lo xamantene yaakaaron nga ne dana la diise mu ñëw ci yonente bi wa sallam naka man day def na njombe tay def na musiba lo def naka dal am ndaw suma sekhal dal ba tegante naa ax moom lex maanaam fon naa ko si la yàlla waxe ne wa aqimi lsolata tarafayi nnahaari wa zulfan min alleyl inna alxasanati yuzhimna alsayi'at kon nag wa aqim na salaa ñu taxawal julli soxna Roxaya mu ngi wax ne waxtu suufiina kooku mooy rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam kon mbokk yi déglu Safin FM 98 point 2 fii ci Scat Urbam eh, ñu ngi nuyu soppe yëpp rek fu ñu mën a nekk macha allah mais yàlla defal leen tawfiix yen ñëpp ñu ngi tey si julli importance si julli ginnaaw bi ay mbokk sàkko ñu dellu si si lool ngir ñaax si suñu bopp waaye ñax si mbokk jullit yëpp wane ne fi ñu toll ci adduna bi tey bu ñu bëggee noppalu rek nañu dellu ci julli mbokk yi moom lañ lay wax léegi ci alquran si sunna su yonente bi sallallahu alayhi wa sallam fu crise masaan xewee rek yonente bi digle julli moom la daan defit daan wax ne arihna biha ya bilal julli moo lay lëkkale sa boroom ba nga xamante ne àddina dootu la yitteel ba di la déranger doo daw ci ginnaawam waaye mooy ëlbatiku ci daw ci yow ci tranquillité ci équilibre ci yëpp te loolu ci julli nga koy amee gis nga mboolem xeetu bàkkaar yi yàlla defal nañu yiw ci mbaaxam nga xamante ne julli rekk mën na effacer yëpp ba ngay tàmbali ba ba ngay jeexal gis nga boo génnee boo waajee di julli rekk malaaka yi ñu ngi taxaw di la ñaanal ngir yàlla di la jéggal di defal ay leer di defal barke te loolu ci julli nga koy amee foofu ñu daane la woon mbokk moomu lu mu wax na yenente bi def naa ko ci bàkkaar yàlla tontu ne wa aqimi salaata tarafay nahaari wa zulfan min al leyl inna alxasanaatu yuzhibna alsayi'aat yu baax yi maanaam limu mu ci namm mooy julli mën nga ci bañ a waaye mboolem xeetu yu baax yi ñooy effacé ñaawtee fii rawatina julli waa ji bég lool xam ne yàlla yërmandeem yaatu na mbokk yi sama classe gi sàggan lool ñu julli ci waxtu sama classe gi sàggan lool bu ñu laa julli ñu fàttali leen ko ñu def ko tey bu ëllëgee ñu bàyyiwaat sama classe gi sàggan lool bu ñuy julli ngir ñàkk pexe waaye danañ ko def ci anam bu gaaw la daloon waaja ba mu ñëwee ci yonente bi ci jàkk ji muy julli ñetti yoon mu nekk izhab fa salli fa innaka lam tusalli dellul nga julli ndax julleeguloo kon nag war nañu jàjjeekuwaat war nañu delluwaat ci borom bi subhaanahu wa taala ci julli mbokk yi mooy li ma ubbee rek ne ku yàlla nammal yiw ku yàlla nammal mbaax ku yàlla nammal texe ëllëg yowmal qiyaama dana ubbi sa dënn ba leeru ngëm yàlla bu ñëwee rek day dugg maanaam foo déggee njub foo déggee lu baax rek danga naan lii maa ko moom da ngay gaawtu jël ko xamal ne yàlla bëggal na la boppam kon nag nañu laxasuwaat mbokk yi waxtu yu jot na nañu góorgóorluwaat mbokk yi ci julli ndaxte jot na إن الحسنات يذهبن السيئات mbokk yi déglu Safin FM 98.2 bu ngeen fëggee rek soxna Roxee dina leen ubbil incha allah ci 88 628 10 95 88 628 10 95 loolu li muy wane mooy yërmande borom bi subhaanahu wa taala kon nag ana ana ñii doon def. naka noonu ana ñi doon gàtteñ lu ci wàllu julli ana ñi nga xamante ne ñi ngi wanoon seen boroom gannaaw dëkk mël àddina rekk ana ñi nga xamante ne seytaane dig na leen te digéem yëpp ay war la ana ñi nga xamante ne seytaane mu ngi leen di bëggal noflaay ne la julli daal waxtu woo ko defee baax na noo ko defee baax na waaye yii yëpp ay gymnastique la rek ay sëgg xa siggi la rek déedéet sama mbokk bi bul bokk ci ñoom jot na am ma aanal aan jot na nag ñu dellu ci borom bi ngir sàkku rahmatahu waaye tamit ngir du muslu ci azabahu moom borom bi sàkku yërmandeem tey muslu ci mbugalam ëllëg yowmal qiyaama ndax mbugalam wallahi amul sikka sàkka lu am la waaye yërmandeem yaatu na yërmande yàlla yaatuna lol mbok yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa rombe bés ci ben qabru mu laaj mom yonent bi man saaxibu hadha al hab amna kuy fëgg alo alaykum alo salaamaaleykum alaykum akay ñu ngi ziar bu baax ñu ngi ziar bu baax sant yàlla bu baax allahuma amin yaa rabbi jërëjëf jërëjëf allahuma amin yaa amin yaa rabbi ñoom ñëpp lay dégg ah, Omar Diagne wallaay dëgg la wala wallaay mu ngi lay dégg incha allah ñëpp a ngi koy dégg tur bi naan la mhm. allo allo waaw kan la. man damay mën a jaw. may mën a. waaw <laughs> waa HLM. ngi lay ziar soxna may mën a. ñoom ñëpp ñu ngi leen koy delloo. walaay jërëjëf incha allah jërëjëf kontaan nañ ci yow. amin amin amin jaw amin amin jaw amin amin amin amin amin allahuma amin jaw amin waay. amin amin allahuma amin jërëjëf soxna Maymuna macha allah kon dëgg macha allah moom it kuy topp rajo bi la mu ngi woon sànq ci El Hadj Omar Diagne borom waxtaan yu neex yi te am solo lool macha allah kon nag soxna Maymuna mu ngi lay nuyu di nuyu ñëpp si 88 628 10 95 macha allah rabbi jërëjëf euh, am na ñuy jaar ci SMS yi ñoom it jot nañ seen message yi ñu ngi leen di jaajëfal aussi yal na yàlla fayal ñu leen كندك تي 88 628 10 95 كوفا غرك ان شاء الله ننلا بسم الله يونس تبي من صاحب هذا القبر من صحابه كي تد في كان لا ني واخ كو نيكو ديولا موم يونس تبي مولين ركعتان احب الى هذا من بقيه دنياكم الله اكبر يونس تبي نلين غيس نين نياري رك في مو تد ني تاي نياري رك سوكو مانون ام moom mi tëdd ci biir bàmmeel bi yonente bi ne moo ko gënal lii des seen àdduna yëpp li ngeen dese ci seen àdduna yépp suñ ko naroon andiwaat moom mu ne ñaari rakk rek mu def ko moo ko gënal xoolal mbokk yi lan ngay dégg foofu amaana yonente baa nga ñuy wan importance julli su laa wees amaana mu ngi ñuy wan dem ci biir bàmmeel di wax ne ah sàggante ya ma amoon day bu ma bu ma sañoon góorgóorlu julli walla boog amaana muy aaya yi nga xamante ne danañ ko jàng léegi ne bu ko yàlla mayaatoon occasion mu man mën dellu wat ci àddina julli rekk lay nekke wax boobu kii di wax moo ko moom kii di déglu moo ko moom ñun ñëpp ñoo ko bokk moom ku si ne jàppal ne situation bobu ñun ñoo ci ne ñu xamne bon yàlla may nañu occasion ñaari rak yoy yonent bi di wax occasion ñëw na mbokk yi ñu man ko def bu dara la xew yàlla may nañu baxé nañu lolu yonent bi gis te yàlla nee wama yantiqu anil hawa mom sallallahu alayhi wa sallam lu mu wax rek noona la am lu ko suñu borom won kon deug ñun ñoy bénéficier wu ñooy ci circonstance boobu la salaamaaleykum. salaamaaleykum. wa rahmatullahi wa eh, ñu ngi lay eh, ziar. jërëjëf jërëjëf. jërëjëf Seck jërëjëf. sant yàlla jërëjëf. barakallah macha jërëjëf Seck. Eh, amin. ziyaare ak ñaan yi yoon dëgg la wallaay sek wallaay wallaay dëgg la mais dara ne waatu fa wallaay dëgg la <laughs> wallaay sek wallaay sek ah, la koy delloo ñëpp nga la koy delloo mu lay dégg mu lay dégg jërëjëf jërëjëf macha allah El Hadj Doudou Seck macha allah mu ngi ni ñep nebar gu yep momit it allah jamono ba mu ngi and ak rajo ñuy wa Liberté 4 ñep Liberté 5 ñom ñep ñu ngi ni di allah ci 88 628 10 95 moy gu mu joko gi allo salam alaykum allo salam alaykum allo salam alaykum Ah, dafa mel ni rëcc na dina fëggat bu fëggee rek soxna Roxaya ubbil ko incha allah ci 88 628 10 95 ñu ngi si julli eh, gën ñoo ñaax gën ñoo fàttali su ko defee ñu ndokkeelante saafonte incha allah ngir rek xol yi delluwaat ci borom bi subhaanahu wa taala mu ne kon nañu góorgóorlu bu waxtu rëccu lay ñëw mbokk yi allo salaamaaleykum allo fa daaw kon nag bu fëggaatee rek incha allah dana baax si 88 628 10 95 kon nag mu ne bu yàlla di wax ne na ngeen góorgóorlu ci occasion yi ngeen am muy man mi di wax muy kii toog di déglu wala kaneen am nañu occasion pour di julli pour delluwaat ci borom bi subhaanahu wa taala ku si ne jàpp li wees si suba ba léegi démb barka démb ak mële paase at yële allo salaamaaleykum asalaamaaleykum salaam Pape wan ñu ngi dëgg la wan dëgg la yaa bu baax wan yàlla defal jàmm allahuma amin wan amin amin yàlla ñu amin wan amin julli moom farata la wallaay farata la kon woo ne ne moom yonant julli jërëjëf caaxaan amul déedéet déedéet kon nag ko julliwul dafa sàggan jërëjëf ah. wallaay wallaay wallaay. bi ñu koy àtte kenn du kenn du yëg de. kenn du yëg wallaay dëgg la wan. kenn du ñaan de. wallaay dëgg la wan. jàppali ko wala beneen yoon. amul de amul de wallaay dëgg la déedéet déedéet mooy am rek. wallaay mooy am. maa ngi ñaan ñaanal yàlla jàmm. yàlla amiin amiin yaa rabbi amiin defal ñu ko ñu ñëpp incha allah ñëpp a ngi lay fay. su mu nekk nii fan yëpp suma yaram bi neexul. wallaay wallaay macha allah. maa ngi ñaan damay ñaan ñaan. incha allah. maa ngi leen di ñaanal. incha allah ñu ne danañ la ñaanal bu baax jërëjëf incha allah mu ngi lay dégg. papa Amadou Sow papa Amadou Sow. El Hadj Doudou Seck macha allah. est ce que est ce que est ce que. macha allah. ak Chérif jërëjëf. yi ma baax ñoom ñëpp maa ngi leen di ñaanal yàlla incha allahu rabbi yàlla nu yàlla defal amin wan amin wan wér bi lu ñu séntu nii yàlla ñu fekk ak jàmm amin yaa rabbi wan woor ko ak jàmm amin wan amin wan yàlla nu yàlla defal jàmm amin amin wan parce que li ngeen di wax jërëjëf jàmm yàlla la bokk wallaay wan wan wan sama compagnie yëpp lu mu xamul woon xam na wallaay macha allah alhamdulilah alhamdulilah yàlla na ko yàlla fayal bopp alhamdulilah yal na ko yàlla fayal boppam amiin yaa rabbi amiin amiin yaa rabbi yàlla oyofal nga amiin yaa rabbi amiin yal na ko oyofal amiin yaa rabbi diine day moom diine la wallaay diine la wallaay dëgg la wan wan wan yàlla daal aha nañ sant yàlla bu sant yàlla kay wan sant yàlla sant yàlla wan am nga jullit aha xol la rek xol jërëjëf fanaan ci jàkk mhm. macha allah kon nag jullee ngi noonu paa war ga wan macha allah lu am solo la wax mbokk yi julli mooy lépp gis nga mag ñi macha allah allo salaamaaleykum. waaleykum salaam Iman. wa gitu ya. ya kay ñu ngi ziar. par kat xanaa ki da nga xamul tour bu baax wala. <laughs> wala Adja Mari. eh Adja Mari wa lay <laughs> ziar. imam no ah, def jalla jalla jalla ngi ziar bu wér. ngi ziar. ziar Imaam. mu ngi lay fay macha allah. ak allah. Nah, waa cité a ngi lay fay. macha allah ah di nuyu waa cité bi kooku mooy Adja Marie Diallo bu duggee rek soxna Racky dugg na dëkkandoo yi dugg nañ macha allah yan yàlla defal ko tawfiix moom it macha allah ñoom it ñu ngi bàyyi xel rajo bi di ñu ñaanal di àndax ñun ci lépp yan yàlla sàmm leen muy dëkkandoo yi macha allah kon nag ci 88 628 10 95. kon nag yàlla yàlla defal ñëpp tawfiix kon nag suñu borom bi di ñu moytu ndokuloo ruccu. li góor gi doon wax léegi Pa Warga Wan ñu ngi koy ñaanal te soppe yëpp it na ngeen ko ñaanal ndax yaramu mag la rek yal na yàlla sàmm ñoom mag ñooñu le waaw allo salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulahi wa barakaatuhu. wa barakaatuhu ñu ngi la koy doole soppe soppe yi. di ndokkele. ñu nit ñu ngi la koy ja ndokkeele. wallaay wallaay wax na ñu ko waaw xam nga man léeg-léeg damay damay dox rek man. waaw waaw <laughs> benn mbokk dafa feebar. si julli rek lañ ko ko mënoon defee. wallaay wallaay wallaay dëgg la. yàlla def yaa rabbi. dëgg yàlla yàlla yàlla macha allah macha allah. wallaay xam nañ loolu xam nañ loolu. jërëjëf ñëpp a ngi la koy delloo. allahumma amin yaa rabbi amin yaa rabbi El Hadj Malick jërëjëf soppe yëpp a lay nuyu euh, ñu ngi lay ñaanal foo toll di la sant bu baax si sa taxaw ci sa ràbbale gi ngay def ci diggante soppe yi yal la yàlla sàmm bu baax yal na yàlla aar la yaax ndongali vraiment seen initiative rafet na allo salaamaaleykum asalaamaaleykum wa rahmatulah. wa barakaatuhu Sarr maa ngi ziar. ñu ngi lay ziar bu baax alhamdulilah alhamdulilah. di nuyu ak ziar topp yëpp. ñëpp a ngi la koy delloo Sarr. di ñaanal ñëpp mm. yàlla. macha allah jërëjëf yàlla yàlla ñànguñu suñu juma. allahumma amiin Sarr amiin yaa rabbi amiin amiin. yàlla sàmm leen sàmm njaboot amiin yaa rabbi amiin yaa rabbi. amiin yal na yàlla kontaan amiin yaa rabbi amiin yaa rabbi amiin amiin Sarr amiin waaye amiin amiin dëgg yàlla kontaan. ñu waa bureau bi. yëpp maa ngi leen di nuyu ñoom ñëpp. nuyoo ak cant yi. waa jërëjëf jërëjëf. la mu maa ngi koy fay bu baax a baax a baax. a Pape Sarr tamit. mu ngi lay déglu waaw allah ñooñu sumay macha allah macha allah. yàlla yàlla dafa ñu taw. allahumma amin yaa rabbi yàlla yàlla sàmm. amiin yaa rabbi amiin yaa rabbi. macha allah kooku mooy Abdoulaye Sarr suñu mag la suñu kilifa la di nuyu suñu yaay yaafaal moom it day toog rek fi mu toog yore kurus gi di ñaan rek yal na ko yàlla sàmm bàyyi ñu ko fi lu yàgg yàgg lool lool macha allah rabbi dundam amal na ñun njëriñ wax dëgg yàlla kon nag euh, yaafaal ñu ngi lay nuyu bu baax a baax a baax euh, kilifa nii rek lay taxawoo njabootam ñu ngi yëg say ñaan ci zahir ak baatin euh, yaay yëpp fu ñu mën a nekk it yal na leen yàlla defal tawfiix Euh, ndax jur moom moom wayjur rek la mën a doon macha allah bu yàlla di wax naan na ngeen topp jur yi na ngeen leen tarbiyu na ngeen defax ñoom na ngeen na ngeen yooyu yëpp kon nag du hasard jur yi yan na yàlla sàmmal ñu leen ci 88 628 10 95 fépp fu soppe nekk rek ñu ngi lay nuyu di la ñaanal yàlla kon nag suñu borom di moytu loo bu ñu demee ba toll fa nga xamante ne ñu ngi rëccu naan bu ma yëgoon am occasion muy wax ci alxuraan naan na ngeen profité ndax fa ñu jëm dafa sori lool sori na lool ay lëndëm lëndëm la xamuñu lan moo fay am yaakaar rek waaye yaakaar mu àndax tiit parce que njuum tey rëcc-rëcc yi tayeef yi yëpp bari na kon nag nañu si yóbbalu mbokk yi wata zawadu nañu seet yóbbal mbokk yi te julli taxaw na bañ ña yàlla di wax ñi bañ ci bokk dem ba adduna jeex ci ñun ñu wuy ji suñu boroom ñu wan la la nga fa nekk woon ñu commencé di rëccu naan bax da auzu billahi min alcheytan rajim boo demee si suratul muminin 99 ba 111 حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون لعلي أعمل, صال أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزق إلى يوم يبعثون فإذا نفح في السور بوضع من فلا نصاب بينهم يومئذ ولا يتساءلون بسبورة فمن ثقلت موازينه نيوني دي فأولئك هم المفلحون يلا إن شاء الله بولة بولة لنتي نيوم نيوم يتكي تخي وعند كبكو هم السفان بلا ومن حفت موازينه سجف باري اللول فأولئك هم الذين حسروا fa ulaika allazina xasiru anfusahum fi jahannama xaalidun yal nañ ci yàlla musal su ko defee ba ay jeex boo ko toppee boo ko toppee di wàllu wàllu ruccu lañuy wan di di wane ku si nekk yaa ngi naan bu ma yàlla mayoon occasion ma dellusee bu ma bu ma bu ma bu ma yooyu yëpp yàlla ne woon mayoon naa leen okasiyon waaye da ngeen yaakaaroon ne dangeen fi fii dund ba faw seytaane nax na la ñaati at nga am nga ne maa ngi ci trentaine yi kii na 31 32 ba 39 kii na dese naa kii na maa ngi ci vingtaine yi xale la kii na 40 xale la kii na 50 xale la dese naa lu bari kii na man de borom kawar gu ñuul la kii na nangam kii na nangam ku si ne koo na ci yaa ngi jëm mag mu ne la déedéet waaye mbokk yi fa innal mawta allazi tafirruuna minhu fa innahu mulaaxikum kon nag mbokk yi li yonent bi waxoon rek moom la ñuy wax assola assola wa ma malakat aymanukum dañu dellu ci julli mbokk yi nañu dellu ci julli te julli yomb na lool li yàlla jencal jaam yi ci yërmandeem moo ëpp fuuf te fàttali gi mu ñuy fàttali yépp ci alxuraan yërmandeem rek la kon nag mbokk yi ñi déglu Safina FM 98 point 2 xamal ne yàlla boole na la it ci ñi mu bëgg ndax yaa ngi déglu lu baax la góor ga di wax rajo yokkute macha allah góor ganeen gi feelu ko ne rajo alhamdulillah kon nag الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهtadiya lawla an hadana allah foofu la ñu koy dagge waxtu julli yi nag comme bële passé dañu ko leboon xam naa bii moom bu ñu ko lebaatee rek góor gi moom xam naa ne ah bu boobaa du baax ci ñun kon nag waxtu julli yi mbokk yi ñu bàyyi ko xel ndax julli lu am solo la doomu aadama bi war na di ko bàyyi xel bu baax jamono bi ñu toll julli suba danañ ko taxawal six heures moins neuf kon trente cinq salaatu dina jot cinq heures trente cinq salaatu dina jot bu ñu demee ba moins dix kon dëkk nga xamante ne julli jot na bu dee ci timis gi dix neuf heures trente timis jot na kon dëkk fajar gi mu ngi noonu muy waxtu wu am solo yonente bi ne ñaari waxtu yi muy julli suba julli tàkkusaan képp ku koy julli daal incha allahu rabbi yàlla dana la boole si ñooñu aljana yi ëllëg muy julli suba muy julli tàkkusaan ndax boroom xam-xam yi dëppoo nañ ne foofu la malaaka yi di relevante di yéegal jëf yi kon nag mbokk yi waxtu julli yaa ngi noonu jullee ngi noonu muy kàddu suñu boroom di kàddu yenente bi di leen jaajëfal ci topp bi ngeen di topp safina jamono bu ne di leen dox daje ba aljuma bi di ñëw di leen ñaanal yàlla fu ngeen mën a nekk lépp lu ngeen di yëngatu yal na ko yàlla barkeel yal yàlla def sutura waaye fàttewuñu maam Issa ñu ngi koy nuyu bu baax a baax a baax a baax ñu koy nuyu bu baax di ko ziyaar di yëg ay ñaanam te xam nañ ne mu ngi ànd ak ñu nit jamono bu ne di ñaan kon nag mbokk yi di leen dox daje ba aljuma bi di ñëw wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.